auzu billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk nuuru daara di Touba ca kanam comme niñ koy defee weer wu nekk ñu fas yee leen li dugg ci compte Touba ci kanam ci weeru janvier 2021 ginnaaw boo xamee ne ñu ngi eh, jiital ci suñuy nuyoo sëriñ Muntaxa Bachir di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wër di ko ñaanal sëriñ Abibu Euh, Mbacke Falilou ak Serigne Abdoulaat Mbacke ak le président Serigne Abdoul Fatah Gueye di xamle ne rek li dugg ci weeru janvier bi ñu koy tàmbalee Touba Touba dugal na 39 millions 668 mille 800. Wave plateforme bi dugal na ci mois de janvier 6 millions 918 mille 800 francs. Orange Money versement dièse 144 dièse 621 dièse dugal na 4 millions 126 mille 455 francs Dakar ci njiital Baye Serigne Bousso ak Alaaji Ndaw dugal nañu 4 millions 545 mille 400 ba tey dakaar Sandaga Serigne Afe Niang dugal na 300 mille francs ci weeru janvier RTS daayira ba fa nekk ci njiital Serigne Papa Gueye dugal nañu 216 mille francs Mbàkke ci njiital ajaajoor Dior Gueye Sëriñ Mama ak Soxna Kuma Njaay dugal nañu quatre-vingt mille francs mm, Rufisque Guy Murit sëñ Magat ja dugal na trente mille francs Bambey ci njiital Sëriñ Abdul Fall dugal nañ cent soixante-quinze mille francs Casamance ci njiital Sëriñ Modou Xëri Gueye dugal nañ quatre cent cinquante mille francs croisement jaarume ci njiital Serigne du Makhtar mbay dugal nañu cent mille francs daayira Babul Ayaadi Añaam ca Matam dugal nañu quatre-vingt-onze mille francs Kafountine ci njiital Serigne Jëmu Cissé dugal nañu deux cent mille francs Diourbel Soxna Ndey Njaay dugal na un million cent quatre-vingt-six mille francs Ourossogui Soxna May Mbàkke dugal na trois cent quatre vingt mille francs Fouta bokki laajee sëñ Mouhamad Fadal Dia dugal na quatre-vingt-dix mille francs Goudiri Serigne Dame Ba dugal na six cent cinq mille francs Joal Serigne Bassirou Thiaw dugal na cinq cent neuf mille francs Kaolack Serigne Moustapha dugal na deux millions cent cinquante mille francs ci njiital Serigne Babacar Mbacke mu Kaburo Kébémer Serigne Gora dugal na million quatre cent vingt trois mille francs Kédougou Serigne Modou Lo dugal na six cent soixante dix mille francs Xombol Soxna xumature dugal na quarante cinq mille francs ci njiital Serigne mbay fay Kolda Serigne Moussa Sène dugal na trois cent trente six mille francs Louga Serigne Moustapha Bassirou Mboub dugal na deux millions cent quinze mille francs Matam Serigne Ndiaga dugal na quarante cinq mille francs Mbour ci njiital Serigne Mor Sourang dugal nañ deux millions soixante dix neuf mille francs Moudéri Serigne Bassirou Ndiaye dugal na cinquante mille francs Ndiawara Serigne Cheikh Anne dugal na cent cinquante mille francs Ross Béthio Serigne Alioune Ñing dugal na trois cent soixante quinze mille francs Saint-Louis ci njiital sëñ Ridial Seck ak Soxna Rama dugal nañu un million ci compte Touba ci kanam Fouta Oudourou Serigne Maam Thierno Silla dugal na cent dix mille francs Sànc Mbàmbe Sëñ Xaadim Ñang dugal na soixante cinq mille francs Thiès Serigne Mbay Lislam Sall dugal na six cent mille francs Jifeer Sëñ Ousmane Ndiaye dugal na deux cent cinquante mille francs Vélingara Serigne Mbacke dugal na cent cinquante mille francs Tawa Ndiaye Soxna Nogay Kebe dugal na trente deux mille francs Fouta Bokki Jaawe Serigne Talla dugal na deux cent mille francs versement anonyme yi nga xam ne xamuñu seen borom mi ngi toll ci deux millions six cent soixante-trois mille zéro quatorze francs ci frais bancaires yi nga xam ne banque yi dañ koy jaayante ku mel ni Outarde delloosi na ci compte Touba ci kanam cent quatre vingt mille neuf cent quarante-trois francs ci weeru janvier. kon li nga xam ne dugg na ci compte yi ci mois de janvier eh, ci zone nationale bi mu ngi toll ci 74 millions 391 mille 412 francs 74 millions 391 mille 412 francs ba tey ci weeru janvier bi am na ay retour d'espèce loo xam ne ay budget la woon ci màggal gi eh, ñu utiliser ko mu des ñu delloo si delloosiwaat ko ci compte Touba ci kanam ci budget yooyu lu mel ni exposition màggal 2020 bi delloosi nañ ci trois cent cinquante et un mille cent quinze francs ci compte Touba ci kanam kon nag ñu dem ci li li li jóge bitim réew dugg ci compte Touba ci kanam fu mel ni zone Asie nañuy tàmbalee Corée du Sud ci njiital Serigne Saliou Sow dugal na cent cinquante mille francs ci compte Touba ci kanam bu dee zone Amérique euh, fu mel ni Chili ci njiital Serigne Khadim mbay versé nañ quatre mille huit cents Brésil Serigne Cheikh Ndiaye jëwriñ versé na cent quatre vingt mille francs Uruguay Serigne Ndongo Niang dugal na cent mille francs États-Unis Serigne bu Seck dugal na six millions cent soixante mille trois cent francs Argentine Serigne Pape Soda Sey dugal na quatre cent soixante quatorze mille huit cent kon bu ñu xaymaa li jógee Amérique yëpp day toll ci sept million cent vingt mille neuf cent francs ñu jëm Europe. Europe ñu ngi koy tàmbalee Allemagne ci njiital Serigne Abdou Salam fay dugal nañ 1 million 334 francs Angleterre ci njiital Serigne Fallou Diop dugal nañu 500 000 francs Italie coordination Italie dugal nañ 3 millions 752 mille 719 francs France coordination bi dugal nañ 1 million 435 mille 630 francs Espagne ci njiital Serigne Malick Dieng dugal nañ 1 million. 634 796 francs total Europe mi ngi toll ci lépp li dugg ci compte Touba Ca Kanam bàyyi ko Europe mu ngi toll ci 8 millions 323 mille 479 francs 8 millions 323 mille 479 francs ñu dem zone Afrique Afrique ñu ngi koy tàmbalee Angola Angola ci njiitul Serigne Mamadou Ba dugal nañ 79 500 Centre Afrique Serigne Cheikhou kebe dugal na six cent cinquante quatre mille six cent soixante six Mali seriñ Alioune Wàcc dugal na un million trois cent quatre mille francs Afrique du Sud Serigne Mor Dieng dugal na cinq cent quatre mille francs Guinée Bissau Serigne Modou Atta Seck verse na huit mille huit cent francs kon ci weeru janvier Afrique ñi dugal mi ngi toll ci trois millions cinq cent mille neuf 3 millions 539 mille 966 francs suñu boolee li dugg nag zone nationale Afrique Europe Asie Amérique lépp lépp ci weeru janvier bi ci wàllu carte ak reçu lépp day toll ci 93 millions 878 mille 272 francs 93 millions 878 mille 272 francs terewul nag am na ay jaayante yoo xam ne dugg si na ci weeru janvier ci compte Touba ci kanam loo xam ne mbokku taalibe yi ñoo ko jaayante du ay carte du ay reçu loolu nag euh, jaayante yooyu mi ngi toll ci un million cinq cent quatre vingt onze mille huit cent francs un million cinq cent quatre vingt onze mille huit cent francs bu fekk se li ñu jaayoon ci ay reçu mu toll ci quatre vingt treize millions huit cent soixante dix huit mille deux cent soixante douze li ñu am lépp lépp ci weeru janvier li dugg ci compte Touba ci kanam ci mois bi day toll ci. quatre-vingt-quinze millions quatre cent soixante mille zéro soixante-douze francs quatre-vingt-quinze millions cent soixante-dix mille zéro soixante-douze kon ñu jublu ci décaissement yi bu ñu jógee ci li dugg ci compte yi ci weeru janvier ñu wax leen it li génn ci compte yi li génn ci compte yi ci mois de janvier ñi ngi koy tàmbalee ci poste de santé bu Daaru Xadim dépensé nañ fa un million quarante-quatre mille francs poste de santé bu Touba Ndiarème moom it dépensé nañ fa ci weeru janvier cinq millions cent soixante deux mille deux cent quatre vingt dix sept francs li jëm ci chantier université nga xam ne valeur u huit cent millions la liñ ci jot a dépensé ci mois de janvier mi ngi toll ci vingt deux millions cent six mille neuf cent francs vingt deux millions cent six mille neuf cent francs ba tey opération defar yoon yi nga xam ne mooy piste yi ak assainissement bi. ñu ngi ci dépensé ci weeru janvier 38 millions 200 mille 992 francs 38 cent 200 mille 992 francs bu dee poste de santé bu ndam moom it ci weeru janvier dépensé nañ fa 1 million 430 mille 283 francs massification bi yore euh, yaataluk liggéey bi moom ci weeru janvier bi dépensé na mille 855 750 francs 855 750 francs commission communication ci weeru janvier dépensé nañ 470 000 francs commission logistique ci weeru janvier dépensé nañu million millions 59 mille 85 francs adduction d'eau dépensé nañ fa 103 mille 650 francs frais divers yi tamit Euh, dépensé nañ ci vingt mille francs commi su commission leeral bi yore làmp yi dépensé nañ fa trente deux mille cinq cent francs siège u Dakar ak siège u Touba nañ fa cinquante deux mille quatre cent francs commission reboisement dépensé nañ ci weeru janvier deux cent cinq mille francs su commission membre mi yore wàllu bloc de reçu yi ak carte yi dépensé nañ un million deux cent cinquante mille ci weeru janvier bi budget fonctionnement bi ñu fi faral di def ngir yenn frais yi nga xam ne day bette dépensé nañ ci weeru janvier cinq cent cinquante cinq mille francs chantier bi nekk euh, base ba Touba Sam foofu it dépensé nañ fa deux cent cinquante mille francs charge fixe yi nga xam ne ci la ñuy fay salarié yi ak personnel Touba ca kanam yépp ci weeru janvier mi ngi toll ci cinq millions trois cent soixante quatre mille cinq cent francs million 5 millions 364 mille 500 francs commission scientifique et culturelle ñoom it ci weeru janvier dépensé nañ 60 mille francs commission administrative ñoom it ci weeru janvier bi dépensé nañ 464 mille 500 francs am na it ay frais divers yoo xam ne mi ngi toll ci 200 mille francs ak ay frais bancaires ñu toll ci cent 59 mille cent 108 francs donc bu ñu xaymaa décaissement yi ñu def yépp ci weeru janvier day toll ci soixante dix neuf millions quarante cinq mille neuf cent soixante cinq francs soixante dix neuf millions neuf quarante cinq mille neuf cent soixante cinq francs mooy li nga xam ne décaissé nañ ko ci weeru janvier. li ñu dajale ci weeru janvier buñ ci génnee li ñu décaissé ci weeru janvier bi liy des ci weeru janvier bi. day toll ci quinze millions cinq cent vingt quatre mille cent sept francs loolu des ci weeru janvier bi bu fekk see nag li desoon yépp ci compte Touba ci kanam ci deux mille vingt bi nga xam ne mu ngi tolloon ci huit cent soixante dix millions soixante dix sept mille sept cent soixante et su fekk see montant boobu lii des nag globalement ci compte Touba ci kanam ci janvier deux mille vingt tey toll ci huit cent quatre-vingt-cinq cent un mille huit cent soixante-huit francs huit cent quatre vingt cent un mille huit cent soixante-huit francs kon loolu mooy li des ci compte Touba Kanam ci janvier deux mille vingt et un ñi ngi ziar ñëpp di jégalu ñëpp di sant mbokk taalibe yi nga xam ne li ñuy joxe moo tax lim bi toll fii jamono métti na. waaye du dox mukk suñu digganteeg liggéeyal Sëriñ Tuubaa